ASID-TV la chaîne des patriotes. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ne saay su nekk yéen a ngi saxoo di teewlu di seetaan seen seen bi di ASID-TV la chaîne des patriotes. Euh, professeur Cheikh Omar Diagne ginnaaw bi nga xamante ne jot naa jot benn plainte si ki nga xamante ne muy Djibril War nekk si euh, assemblée nationale mu am mbir yoo xamante ne kookee di professeur Cheikh Omar Diagne yëkkati na ko jëmale ko si moom ah mu daal di ko porte plainte daanaka ñi nga xamante ne waa waa dikk si euh, mois de mars bi ñu génn muy la 16 ñu convoqué woon ko daal di daal di ko wax li jëm si plainte bi nga xamante ne Djibril War tegoon na ko si kawam muy lu jëm si mbirum góor jigéen yi nga xamante ne kookee di Cheikh Omar Diagne Diagne boole na ko si ñi nga xamante ne muy Djibril War wax ne moom dafay soutenir góor jigéen ñi ah, te si ñi nga xamante ne dañuy dooleel góor jigéen si Sénégal si la bokk ginnaaw loolu bañ ko con convoqué le 16 ah, mars bi ñu jógee ah, daanaka jox nañ ko citation ne ko na nga dellu si le 5 avril nga indil ñu preuve yi tey nag si suba si jot naa dem fële nga xamante ne muy dikk dem yóbbu citation bi ngir leeral mbir mi ñu auditionné ko déglu ko daal di ko déférer au parquet ñoo ngi si ligne ak Ousmane Sarr bokk si nitu dëgg valeur ñu bëggoon xam sa réaction li jëm ci mbirum euh, déféré au parquet bi nga xam ne def nañ ko kookee di professeur Cheikh Omar Diagne ñu ngi lay nuyu di la dalal ci ASID TV saar Sarr. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa ASID TV donc di nuyu mbooleem koo xam ne mi ngi déglu ASID TV chaîne des patriotes di wax na man la seen frère Ousmane saar membre mouvement nitu dëgg valeur waaw maa ngi lay nuyu bu baax. Ousmane. ki nga xam ne muy professeur Cheikh Omar Diagne dañ ko déféré au parquet yéen en tant que activiste nga bokk ci nitu dëgg valeur euh, lan ngeen ci fas yéene dox. waaw euh, tey nag bi ñu bi ñu yeewoo wax dëgg yàlla dañu am surprise bu rëy euh, surprise bi ñu am mooy bi ñu dégloo ne waa dig déglu nañ ki nga xamante ni mooy professeur Cheikh Omar Diagne bi ñu ko dégloo ba pare ci la procureur woo télé woote téléphone fi nga xam ne mooy dig pour que ñu indil ko professeur Cheikh Omar moom mu dikluwaatal ko boppam bi muy dem nag. heure bi mu ko convoqué woon Cheikh Oumar Diagne dem na une heure de temps avant mais une heure de temps avant yi ñu gis ne procureur daf ko diglu si loo xamante ne nii avocat am teewu fa muy maître Khoureyssi Ba maanaam daf ko diglu sans avocat parce que xam na ne bu avocat am teewoon xëy na am na yoo xamante ne nii du ko mën a def te avocat bi dina témoin bu génnee wax opinion bi lépp loo xam ne Cheikh Oumar Diagne wax na ko fa ak li nga xamante loolu la procureur nar. kon moom bañ koy déglu kon moom bañ koy déglu avocat maître Khoureyssi Ba fekkeew ko. allo. kon moom bañ koy déglu ki nga xam ne muy avocat am fekkeewu ko woon. allo. ma ne ki nga xam ne muy Cheikh Omar Diagne bañ koy déglu kon euh, avocat am fekkeewu ko. Cheikh Omar Diagne bi ñu koy bi ko procureur di déglu avocat am fekkewu ko maanaam déglu nañ ko une heure de temps avant. Hmm. avocat am di ñëw parce que heure bi ñu ko convoqué woon dafa ñëw lu jiitu heure boobu parce que amoon confiance que ne dañu koy déglu bàyyi mu dem ñibbi looloo tax mu teel a dem moo tax bi ñu koy déglu avocat euh, bi muy ñëw parce que fekk na ñu ñu déglu ko pare. bi ñu ko digloo pare nag après procureur moom ñu yaakaaroon dañ koy bàyyi mu dem ñibbi waaye procureur daf ne daf koy maanaam daf koy place su mandat dépôt en attendant mooy euh, place su garde à vue yóbbu ko commissariat plateau mu fanaan ko première nuit bu subaa ñu defeere ko léegi nag ñun en tant que activiste ni ñu ciy taxawee mooy dañu gis ne lii dafa doon loo xamante ni nii lu ñaaw la ci image Sénégal parce que Djibril War bi nga xamante ni moom la Cheikh Omar moom moo jote ak Cheikh Omar Diagne maanaam ñu yónnee citation directe Cheikh dañu gis ne li Cheikh Omar Diagne doon wax yëpp dëgg bu wér péng la parce que affaire yi ñu bëri dañu yaakaar ne affaire u tarixa la maanaam dañ naan Cheikh Omar Diagne day engage tarixa yi day def fekk na affaire mooy Djibril War dafa bokk mooy euh, groupe yi nga xamante ni ñoom la ñu yebal international ñuy dem di siège Nations Unies pour défendre li nga xam ne mooy àq ak yelleefu góor jigéen yi si loolu nag la Cheikh Omar Diagne waxee ne Djibril War dafa bokk PCA bokk si ñuy défendre góor jigéen yi loolu moo tax ki nga xamante ni mooy Djibril Wade porte ko plainte pour pour après si la ko procureur téye ni mu doon loo xamante ni vraiment lu ñaaw a ñaaw la bu Sénégal ak si Sénégal tollu tey. dañoo dégg si biir xibaar euh, mi nga xamante ne euh, jot nañ ko taataan ba léegi ki nga xam ne muy professeur Cheikh Omar Diagne balaa ñu ko doon déférer au parquet jot na am confrontation ak Djibril Wade bi nga xamante ne moo ko port plainte ndax loolu wér na. waaw euh, si comme ni ko déggee si xibaar yi Cheikh Omar Diagne avant muy euh, muy dem fi nga xam mooy si procureur si biir dig mook Djibril War jot nañu fa confronté euh, plus de trente minutes trente minutes yooyu nag lan lañ fa doon def ak lan lañ fa wax wax dëgg yàlla ñun xamuñu ko mais en daal ñoom ñaar am na confrontation boo xam ne am na fa trente minutes avant muy jugee fi nga xam ne mooy dig mais nag xamuñu lan lañ fa doon def ak lan lañ fa wax hmm. waaw ki nga xam ne muy professeur euh, Cheikh Omar Diagne gis nañ ne balaa lii di am fan yi ñu génn jot naa démissionné euh, si poste yi nga xamante ne dénkoon nañ ko si biir àmb sàmb jikko yi mu ne léegi membre simple la ndax lii doonul woon lu mu séentu ba pare mu doog ko def wala lan. Euh, déedéet Cheikh Omar Diagne bi muy bi muy démissionné ànd sàmm jikko yi donc lii séentu ko woon parce que man waxtaan na moom bi muy démissionné ak bi mu démissionné ba pare ak lan moo tax mu démissionné. Cheikh Omar Diagne li tax mu démissionné parce que dafa nekk nit koo xamante ne nii ñëpp xam nañ ne moom lépp loo xam ne am na si tarixa yi te jaaduwul moom daf koy wax te day jaar sa digg ba donc amul lu mu raay raayal ginnaaw loolu nag tarixa yu bëree bëri fii nii dañu gis ne donc dañu contre Cheikh Omar Diagne parce que dañu jàpp ne Cheikh Omar Diagne day xeex seen tarixa si loolu nag Cheikh Oumar Diagne pour pour pour pour pour mettre euh, pour mettre bien li nga xamante ni mooy ànd sàmm jikko yi bu ko defee ay nit di bañ a dal seen kaw di ko jaaree si moom loolu moo tax mu démissionné parce que dafa gis ne am na ay nit yoo xamante ñu ngi si biir ànd sàmm jikko yi donc ñu ngi ŋàññi ànd sàmm jikko yi parce que li fi Cheikh Oumar Diagne parce que dañu gëm ne Cheikh Oumar Diagne dafa nekk si biir ànd sàmm jikko yi ba pare di xeex tarixa yi te loolu warul am te te ñooñu nag dañuy juum juumte bu rëy léegi Cheikh Omar Diagne nag pour euh, pour protéger ànd sàmm jikko yi loolu moo tax mu démissionné parce que bëggul kuy jaare si moom di ŋàññi li nga xamante ni mooy ànd sàmm jikko yi loolu moo waral euh, démission mais lii moom mosu ko foogee parce que moom yor na ay preuve yu leer naññ ci li doon wax te jàppoon na ne buñ ko yóbboon ba tribunal de la Haye sax bu fa àggee bu ko procureur bu fa nekk dégloo bu génnee preuve yi teg ko kaw taabul bi dafa gëm ne dañ koy bàyyi mu ñibbi këram mais na nag euh, donc surprise la am surprise doy waar si si suñu si suñu réew te lii tamit dañu gëm ne du affaire góor jigéen rek mais état bu Sénégal depuis que mu dégg ne professeur Cheikh Oumar Diagne candidat la si élection législative yi ñu jëm parce que xam naa ne ku mel ne Cheikh Oumar Diagne boo xasee bu dugg assemblée nationale euh, xëy na dina am euh, grande boo xam ne dina ko fa def parce que doon na nit koo xamante ni day xeex góor jigéen te gëm na ne bu fa xasee ba dugg donc góor jigéen ñi seen doole mën na fa wàññeeku loolu moo tax nag état bi di si profité pour que procureur mettre ko en garde à suba nag xamuñu luy xew mais en tout cas lu mën di xew rek ñun pare nañ pour lépp waa kon lu mënta xew pare ngeen pour yëpp kon Cheikh amar Diagne li mu wax ne dafay nekk député yéen si seen si seen si seen jàngat gis ngeen ne looloo tax état bi bëgg ko lalal ndëgg sërëx ngir téye ko. dégguma dégguma maanaam ki nga xamante ne muy professeur Cheikh amar Diagne maa ngi dégg sa biir kàddu nga ne dafay doon candidat si élection législative yi ñu jëm léegi est-ce que nekkul looloo tax tamit état bi bëgg ko tegal benn ndëgg sërëx ngir tee ko. waaw xam nga loolu ñu bëri njott nañu ko. te ñu nit bokk nañ ci liñ njortu mooy ne lii du affaire góor jigéen rek moo tax ñu tee ko waaye professeur Cheikh Oumar Diagne candidat bi mu nekk ci élection législative yii di ñëw loolu moo tax état bi profité aussi pour que conduire ko ci affaire góor jigéen pour mën ko téye bu ko defee jaxase ko ko askan bi ne ko ane kii kat moom moo fi nekk di saaga tarixa yi moom moo fi nekk lii fekk na affaire bi du loolu affaire bi mbirum góor jigéen moo nekk ci kaw mais Cheikh Oumar Diagne moom ala kulli aale bi mu neex ko mu naqari ko élection législative yi di ñëw dina nekk candidat te incha allahu rabbi dina nekk député te loolu moom mënuñoo fexe mënuñoo def seen ay pexe ba ba gàllankoor li nga xamante ni mooy candidature Cheikh Oumar Diagne parce que incha allahu rabbi si kàttanu yàlla force loolu moom day jàll. Euh, Ousmane Sarr ki nga xam ne muy Cheikh Oumar Diagne ndax bu andi woon preuve yi leer nañ dana jar ñu téye ko foofu. waaw euh, en man euh, si lim ma wa waxtaan nañ avant avant yëf yi di am bi mu njëkkee dem ci wax dëgg yàlla mu tegal ma ay preuve que ne yi xam na ne dañ koo bëgg a sànq mais lii moom mënuñu ko see sànq si dara léegi nag xamuñu ban dëgg sërëx la état bu Sénégal teg si teg si ginnaaw ndax procureur yi gis parfois ñu gis ne dañu leen woolu si benn affaire mais ñu dem ba si biir bu fekkee amatuñ pexe dañuy dem sulli beneen dossier di la di la si laaj bu ko defee pour mën la si topp léegi nag xamuñu ban dossier la procureur jaaree pour mën ko topp waaye gëm nañ ne bu dee affaire góor jigéen rek ak l ne Djibril War dafa bokk loolu moom procureur mënu ko seetee parce que jibe loi euh, euh, euh, par contre loi bi nga xamante ni ànd saamu jikko yi ñu doon dugal assemblée nationale pour criminaliser homosexualité Djibril Wade dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni ñoo récité loi bi pour loi bi kon kooku dèjà bu récité loi bi rek dèjà mooy wane ni kii góor jigéen la te budul loolu gis nañu ko muy CSS li nga xam mooy Nations Unies donc nekk député PCA ñi nga xam ne parlement bi nga xamante ni ñoom ñooy défendre homosexualité si àdduna bi donc wax dëgg yàlla soo Cheikh Omar Diagne moom bu dee wàllu preuve rek nee nga ay naa ñu loolu moom bu bu am dara loo xamante ni da koy tiit wala loo xam da nga ko si da ko si euh, euh, jërëjëf Ousmane Sarr bokk ci mouvement nitu dëgg valeur mbégte woon ñu dalal la ci ASID TV doon waxtaan ak yow ci mbirum professeur Cheikh Omar Diagne jërëjëf. waaw man it man am naa mbégte lool pour teew ci ASID TV chaîne de patriotes merci beaucoup. ASID TV la chaîne des patriotes.